yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ku bëgg xam lu mburu di daj ci taal laajal Karim Wade la mu daj démb ca gendarmerie bu Colobane fukki waxtu lëm mu doomi Abdoulaye Wade gi def na ko ci kanamu enquête kat ya Le Soleil nañu waaye Karim Wade génnagul ci mball gi ndax alxames bii di ñëw war naa ca gendarmerie googee janowaat ak enquête kat ya info nañu ëllëgu Karim Wade ma nga ca loxoy Aliou Ndao mi procureur spécial jiite ku répression enrichissement illicite moom procureur spécial la si ba ñuy déglu Karim Wade ma nga woon toog waaye baat waxu ko rek rek moo di bañ tara rëcc ko ci Karim Wade ak la ñu koy laaj ak la muy tont moom Karim Wade journal bi di laas nañu tere nañu ko mu génn réew bu Sénégal jamono ji dañu koo daaj ci réew mi munta dem munta dikk passeport ba mu yoroon sax gars teg nañu ko loxo ngir bañ Karim Wade génn ci réew bu Sénégal populaire ne ko du Karim Wade donc mboolem juróom-ñaari nit yi nga xam ne procureur spécial Aliou Ndao tuddoon seeni tur ne dañu leen di toppee enrichissement illicite a tere ñu génn Sénégal observateur feelu Sud Quotidien ne Karim Wade enquête kat ya ko xamal moo di fii ba ba ñuy nopp ci yow génn ci réew mi libération nañu Karim la ko tee tàggoog sàndarma yi ñaari ponk la ba ca gën a yéeme nag moo di jëflante bi nga xam ne dox na diggam ak l'homme des affaires bi di Abbas Jaber te Abbas Jaber moomee journal bi nañu ko sàgganul filee ki fan dina bokk ci ñiy déglu ca kanamu enquête kat ya observateur nañu la ko gën rey ba tee ba ba nekk ca Belgique ne ñu ci journal bi roplaan boobee rek di jet privé ba war naa mën a tax ñu jël Karim Wade dugal ci kaso bi Walf ne ko foofee àggaguñu fa la xam ba xam ko moo di alxames la Karim di delluwaat jenowaat enquête yi waaye fii ba bés boobee di alxames Karim Wade boppam Ousmane Ngom ne ñu ci yéene bi di Walf Fadjri gaay ni ñuy doxale teguñu ko fenn dañuy benn bennal di tànn am ñu ñuy singili am ñu ñuy bàyyi lañ ci jublu dem ngir ñu neenal procès verbal bi ñi ne bu leen yoon woowee duñu wuy ci ñooñu la Macky Sall di dànkaafu ci observateur ubbil journal bi Macky Sall la mu leen wax moo di ku ñu convoqué da nga wuy ji lu ko may danañu la defeere ci nii wala ñu defeere la ci nale ñu fekk ko ci populaire moom njiit réew muy xam le ne état de droit di réewum yoon wi ñuy wax ci Sénégal du lu ñu yamal rek ci tuñ dañu koy jëfee Karim Wade ma ne woon démb ca gendarmerie jàppale Karim Wade Karim amel na leen àq ju dul jeex ndax xiif ak mar ak tàngoor ak sonn la ñu boole fukki waxtu ya Karim Wade def ca sandarma ya ñoom def nañu ko ca biti ñi def lu ëpp fukki waxtu ca fa ñu nekkoon moo di cantaakoon yi ñu doon atte démb ca tribunalum Dakar yëral populaire ñoom juróom fukki cantaakoon yooyee ak lu teg seenub atte démb la woon waaye ñaar fukki fan juróom-ñeent ci weeru novembre yéenekaay bi nañu ca la ñuy ak yoon procureur ba nag la mu ñu daan la kaso ñi nga xam ne nag ñooy cantaakoon yi ñu yabaloon ci Dakar ñu doon tajaka yàq salfaañe dëkk bi ku ca nekk ci ñoom ñu tëj la ñetti ati te nag daan du yem foofee ndax sàkku nañu ci cantaakon ñu yëkkati ñaari milliards dampe ko ñi nga xam ne ñoom la yàqal observateur nañu cantaakon yi démb ci Ndakaaru dañoo meloon nañu tàggook seen sago di jël guy gi tey ci Dakar gi rek kii di procureur ba ba mu demee ba sonn ci weddi ak sos yi mu mujje moo di génne message yi nga xam ne cantaakon doon nañ ko envoyé kaw a luy jot jot na beneen message bi lañ ca bind moo di barke Cheikh Béthio daje bu mag la woote altine ca buntu rëbës beneen message ba la ca borom bind moo di fier d'être cantakoon message bu tëj message yi nag te procureur ba jàngal ko cantakoon yi moo di barke Cheikh Béthio jëwrin Mbaye Guèye wal fajar grand place dañu procureur ba xaw naa rey yi démb ca tribunal ba ka mu ca gën a jekku nag moo di waa ji ñu naan Mayoro Diop ba ñu ko procureur bi daf koo déglu mu wax ba yeggal mu ne ko foo ma sa gisee ku biiram di daw mu mën a doxee lu toll ne diggante gaaras la Joor ak corniche procureur bi ne a Diop waxal wax ji sa biir dawul woon daf doon daagu <laughs>